dikkati naa saraax ci bopp président Macky Sall bii xel naan man article quatre-vingt nga l'enquête quotidien naan man bul xalaat ñëwal maa lay dugal nag ci bopp président tey xam ngeen Sall ngaari lam tooro saa si tembe xel maa ngi wëndeelu ma ngay xalaat dëgg-dëgg bu bàyyee nguur gi lan nag moo koy xaar ni kéel l'enquête quotidien naan man ci bopp président Macky sal benn ma ngay xalaat nag ban garantie la am moom ak i ñoñam su nekkee moom Sall nekkul candidat ci bopp président Macky Sall yéen bi naan man ma ngay xalaat nan la mujjanteelu ayam di nekkee moom président nee na du candidat 2024 ci bopp Sall ngaari lam tooro Bourguédé ab schéma ngi taxaw ngir sa dëgg-dëgg Ousmane Sonko du ko wuutu te ban schéma la laaj la de yéen kaay bi naan man sama maayin mënul mbalax li jàllal te naan man boo bëggee dégg-dëgg moom président Macky Sall lii ma la tegal ciy laaj moo ko teree nag yéy mbaa yàbbi ci candidature am bi ñu koy jiiñ te cellam gi loo ci man manti déggit Sall mi ngi def effet ndax ba nii da koy doon am du ko doon xamaguñ ko mi ngi ci cellam gaa yi cellam googee la ñu jël nag def ko argument candidat lay doon bu ko deful ñu wañ loxoom tribune yéene kaay mel ni ku naan kon bu ko defee sànku de moom président Macky Sall bés bu wutee beneen mandat sànku ndax APR partem sànku na ba nuppi allié ya réer bennoo ngay wëndeelu xamatul fu mu jëm yenn kaay bi naan ñetteel bi mandat wala ñaareel bi kenkana nuñ ko mën a tuddee baaxul baaxul moom Sall yéene kaay bi dee média bi naan maan bu fàttee 2011 yàggul nañ ko fàttali ni ko ñetteel bi mandat bu président Abdoulaye Wade bi bokkoon na ci ñi ko gën a xeex loolu sax moo ko jural tey ci bopp réew mi tey bu nee la mu bañaloon Abdoulaye Wade da koo bëggal bopp boppam mi ngi juum turbine naan ay ñoñam tey ngeen ko dangaa juum le quotidien le quotidien naan man Abdoulaye Dieye ngi koy wutal beneen mandat turbine yéen a kaay ne ko may ma rek dama ne sàll ngaari bu ko wutee ci mim réew sànku la sénégalais yi mayul Abdoulaye Wade bu mu xalaat ñu may ko ko tey alliéem yi mu def yaakaaram wéeru ci ñoom ñoom allié ci boppam sànku nañu réer nañu ñu ban tànk la ñuy feccee ña ngay tasaaroo seen biir seeni xalaat daal di waroo ñi naan président Macky ñeneen ñi naan suñu bopp te neexul ba neexul sama bopp ma la gënal du bañ la turbine a kaay ne saa jaxase biir allié xam nga nag turbine yéene kaay naan maan ba ñuy taxawal bennoo te ñu ne woon gagner ensemble gouverner ensemble mu jigi nag mu doon gagner ensemble lekk ensemble te lekk gi nag yéene kaay bi naan maan day fekk sénégalais yi ànd ci l'enquête naan maan xam ngeen yéen bu ngeen duggee ci boppu sàll dafa mel ni nag nekkub candidat nekkul yiteem waaye saa si tembe ëllëgëm ci boppam la xamul nu muy mujjee le quotidien le quotidien ne ma ay ñoñam day ña ngi koy wutal Abdoulaye Dieye njiital AIBD ma ngay ut benn million signature ngir sàll ci boppam mën a amaat beneen plateforme Siggi ak Macky moom la taxawal ñu war caa jaar utu pétition benn million ngu xaatim buñ ko amee Sall nag war a doonaat candidat ci mim réew Abdoulaye Dieye ci tribune yéene kaay naan kon sénégalais yee la tàllal loxo Sall ñoo la kaay nga doxalaat utaatal ñaareel bi kenkenaa ci mim réew laas yéene kaay naan man jiital AIBD lal nay basa ngir président Macky Sall jaar doxalaat ci beneen mandat tribune yéene kaay naan man ak ko mënti tuddee troisième ak ñaareelu kenkenaa ci am saa si tembe Sall bu ko wutee sànq l'enquête naan maan en tout cas waxul dindiwul xeexul atewul xeex moom président Macky Sall mi ngi ci cellam le quotidien le quotidien naan man di waajal nag demam ngir Afrique njiital UYAG mu nekkoon man daa ba jeex président Macky Sall di taggoo defuk bilan l'info yéene kaay ne ma saa si témbe réew mii at laata présidentielle bi société civile bu réewum Sénégal di defuk bilan naan gaa yi jël sunu alal ci fond Covid bii te cour des comptes naan dañoo sàccaralu askan wi nañu leeral mu njaay siise ci yéene kaay bi naan saa si témbe réewum Sénégal am amam bëriwul ñun ci réew yu ndóol yi la ñu bokk nañ ko wax tuñu nangu nag aslim su tuut ci réew mi jël yu yaataayu mbéggalayaabe boobu askan wi toog ci ndóol toog ci xiif ak njaxare mu njaay naan sénégalais yi yër leen te ngeen xam nag ni seenu alal ji nga xam ne da ngeen ko amoon ci jamonoy mbas moom leen jël nag di ko caxat-caxatee ci anam wu ñaaw lool mu njaay naan te na mu ñaawee du seete ni gannaaw procureur bi ñu ngi xaar ay enquête division des investigations criminelles gannaaw bi daañu dem ca juge ba xool rapport yooyee lan la joxe nguuru Sénégal ci boppam moo am intérêt leeral mbir mii le thème mooy yéene kaay naan la nga war a laaj mooy ban réew la ñu Veolia di Sen'Eau saa si tembe yokk ndox la nar ci réew mi moo day yéene kaay bi naan maan moom Sen'Eau ci boppam dañu koo dàqee Côte d'Ivoire ga mu nekkoon mu ñëw tey bëgg fatt sénégalais ku mu yokk Mamadou Lamine Diallo ci tribune yéene kaay mel ni ku naan maan ñoo yay dëkkee yokk président Macky Sall la mu leb ci milliards ci bitim réew a bëri ci fukki at yu mu def ci boppum réew mi fukki junni milliar ak benn yu toftal juróomi téeméeri million moom Sall lebi na ko Le Soleil yéene kaay mel ni ku naan koon waaye ronkaat ko ci réew mi ndax Abu Dhabi fas na yéene tabax lu ci fukki junni logements sociaux ci réew mi réew day bëgg tàkk laaj bii la Sud Quotidien xëyee ni ki tey réew mi Quotidien daal dina en tout cas mortal combat diggante Ousmane Sonko président Macky Sall nar na jural réew mi guuta lii dootul adversité mbañeel la l'évidence yéen kaay naan maan réew mi day ñi ngi seetaan loo xam ni wallaay xal muy lakk daay la yéen kaay bi naan maan nañ ci wax diggante bii nañu désamorcé lu ko mooy làmbaay ñaaw L'As Quotidien ne bu ñu yeexee mu gën a ñaaw de parquet bi ci boppam dossier xal ca Mbàkke daal dina koy criminaliser critique yéen kaay ma képp kun ca jàppee procureur teg na charge ci yow nekkoon saa si téeméer lu toll ci téeméer fukk ak ñeenti détenu politique ngi ci kaso yi nekk ci réewum Sénégal tribune yéen kaay naan kon fukk ci ñoom ca Mbàkke saa si téeméer ña nga ca kaso juróom fukk juróom benn yeneen am retour de parquet critique naan kon fukk ñaar yeneen tey jii lañ leen di attee bés bi le journal man ñoo ñaa nga bàyyee ko woon ca coowal Mambay Ñang la te coow la suba lay dekkiwaat ci mim réew suba la ñu war a atte Ousmane Sonko ak Mambay Ñaang ci diffamation barki Dembo Njaay bés ma am ci Mbàkke nguuru Sénégal ne kenn du yëngal république bi saa si téeméer nag naan man ku tiitul complice la ndax Ousmane Sonko ci boppam boo moytul di wuy ji le tem mooy yéen kaay naan man bu wuy jiwul def guuta de saa si tembe day gaayaa ngi ci gëtam vox populi xamal ma ni réew mi day fi mu jëm buñ ca waxul dana gën a ñaaw ma ni mandat de dépôt yaa ngi taw ci mim réew ku génn wax ñu yóbbu kaso bennoo bokk yaakaar di xupp ca wet ga nan dañuy soo garder république bi ko fi wax lu ñaaw ñu rëq sa ndigg société civile ci yéen kaay bi naan assise jot na de jot nañu wax ak sénégalais yi naan leen réew mi ñoo ko bokk ku ko taalit sa wàll nga taal le peuple quotidien en tout cas kilifa diine yi sax saa si tembe dañoo tiit ci réew mi Mouhamadou Lamine sàll ne kàddug maître Ngagne Demba Touré yi dey tiital nañu ndax buñ demee ba ci réewum Sénégal ñuy weddi yaakaar gi ñu am ci sëriñ si day ñaaw l'observateur jo kàddu Mamadou Diop Decroix moom Mamadou Diop Decroix na projet taxaw de lépp nag ci liquider ay tarixa ay nit yoo xam ni identifié nañ leen ñu ngi saaga kilifa diine yi ci réew mi te ñoom seen ginnaaw ay nit a ci ne Mamadou Diop Decroix ne ko artuwul di nga àtte moom président Macky Sall bu waxul mbir mi dina këpp ci kawam Ousmane Sonko it bu waxul du ci am ndam moom Mamadou Diop naan gise naa ak Bougane waaye wax naa téléphone it ak Ousmane Sonko ngir jàmm ak dal ci réew mi kese su soi naan man moo ne Ousmane Sonko moomay xalif dee Baye Fall dalal na ko moom Ousmane Sonko Serigne Fallou Fall naan ko yaay politicien bi fi jëkk ñëw te lu ñu mën ci jàppale la dees na ko def Mamadou Lamine Diallo ci 24 heures yéene kaay kuy dégle cangaay day danga cay jiitu moom président Macky Sall saa tembe lu muy def lu dul campagne électorale déguisée jël ñoo xam ne ay chômeur lañu di leen jox ñaari junni ngir feesal ay jotaayam docteur Bakar Dia ci réew mi quotidien naan kontal ngaari ñe naan lan demal guerre la bu leen déglu Walf naan konte gestu commerçant yi nga xam ne te nga weñ seen loxo ngir ñu wàññi njëkk ñi ngi ci coono goo xam ni maar day taal wàññi nañu wàññi gu amul suivi ndax fa ñuy jëndee wàññi wuñu bés bi le jour naan konte nga xamit sàll ne ku ñuy wax kenn dooy faatu na athlète la woon nekkoon champion d'Afrique ci triple saut wopp na artu na ngir ñu fay koy primam ba tey kenn dooy làqu ci souffrance goo xam ni maar day taal ci koo xam ni senegal la défendre ji woon bitim réew ci koo xam ni yàgg na indi ci réew mi ci métit yéene kaay bi naan kon kenn la tudd sant ndooy faatu na jébbal nañ ko boromam ni ki démb ci yoof te ba tey Sénégal ko ameel ak la mu dige woon ak moom jox ko ko l'observateur ne tey laa leen ni saraax nag ci kujje ak xale yu góor yi bu nu takkee ñaareel naka lañ koy annoncé soxna yi waa ji ne man ba ma takkee lu soxna si def rek dogal sa ñoom euh, ndax nag dañu leen téyandi euh, ñu ngi sàkku it ñu bi information judiciaire en attendant li juge bi di dogal Euh, loolee nag parquet bu Diourbel moo décidé lu ni mel euh, mineur yi nga xam ne nag jot nañ leen teg loxo sa manifestation dañ leen mujjee bàyyi libéré nañu leen loolu de moom Abdoulaye Diagne moom moo koy confirmé. ñi ñu tegoon loxo ci manifester Mbàkke yi toll ci juróom benn fukk ak juróom ñeenti nit juróom benn fukk ak ñaar ci ñoom ñu leen di déglu ñu ubbi ci ak information judiciaire ngir mën a topp ñi nga xam ne ñoom lañ teg loxo ci jëye yu mel ne bokk ci ndajaloo moo xam ne kenn diglewu ko ak lépp lu ca aju yàq alalu jàmbur sañ xal ay doomu aadama ci ñu bokk ci ab dajaloo bu amul ndigal jur ay jéy yu bari ci am amu doomu aadama yi nas ay pexe lompoñal kaaraange gi ba jur ay yëngatu ci wàllu politique yu yéggi dayoo wala sax yoo xame ne dafa jalgati yoon noonu ci juróom benn fukk juróom-ñeent yooyu juróom-ñaar ci ñoom nekk ay gone yoon yolomal lenn juróom benn fukk ak ñaar yi ci des ñi ngi janook juge d'instruction bi. mu ngoog foofa Fofana kon nag mbir yi yaakaar naa ne mu ngi gën a corsé aussi ñi nga xam ne ñoom lañ teg loxo de. oui xam nga procureur dafa gën a chargé le dossier. donc ah, ko xam nga procureur aussi euh, c'est le représentant du ministère public. Euh, moom day instruit à charge donc da lay téye ndi joxe yan infraction le visé ci boppam par rapport ak euh, li nga xam te ne nii mi ngi la koy mi ngi la mais xam nga man yëf yi tamit. xam nga dafa am loo xam ne ne moo jur yàqu yàqute te ya fa am man ànduma ci yàq très franchement surtout rawatina alalu koo xam te ne kii sénégalais la ña fay liggéey ay sénégalais nañ ñoo fay daan seen doole et boo xoolee la xewoon ca mars gis nañ ko fii ci tele bi yàggul ay nit ñoo xam te ne nii ci station d'essence nañuy liggéey mais tey am nañ jafe-jafe perte nañ seeni liggéey mais xam nga loolu yëpp aussi il faut faudrait que suñu njiit yi tamit des fois ñuy ànd ak indulgence ak xalaat aussi parce que la xew Mbàkke bu ñu accepté woon li nga xam ne moom mooy manifestation bi est-ce que lii dina am il est plus facile d'encadrer une manifestation que nga di ko réprimer parce que dégâts collatéraux ya muy jur après ak conséquences ya lu mat la mais yéen le moment dañ ko ci war di bàyyi xel fu muy amee mais da nga koy bàyyi xel waxuma ne nag que il faut transgresser lee règles non mais ñëw ngeen nee ngeen da ngeen di def manifestation le préfet indil ngeen ko gis na ne respecté ngeen délai bi xam nga man bu fekkoon sax problème mu délai la ñu ne peut-être da ko tey yow yaa toog ba mu neex la nga ñëw doog a déposé mais pour un manquement boo xam ne dafa am ci mbir yi mais woo leen nga ne leen sa waay kat daa am coordonnée boo xam ne dafa manqué wala gisuma seeni coordonnées ñëw leen ngeen mottali ko mais la liberté de manifester d'expression dafa nekk loo xam te nii lu sacré la te constitution moom moo ko garantie et au même moment ngay interdire affaire boobu noonu mais le président mi ngi woon à Thiès doo ma ne mobilisation ba fa am politique amu ci met doo ma dogal yéen ca jël wala li ci ëpp lam fa def politique amu ca mais ñoom bu ñu gisee ne kat ñii dañ leen a may ñu manifester euh, euh, euh, gën a waxtaan ak saafoonteeg seen i leader ñoom ñu am loo xam te ni constitution moo leen ko may et tout mais dañuy jàpp ne ne yëf yi kat ku ma am ndey ak ku ma amul ndey lay nuru mhm. donc la gënoon mooy lii lépp mënoon nañ ko éviter ci kaw le préfet le commandement territorial ci wàllum yoon lay dox dafa am ay textes yu régir li nga xam te ni moom mooy suñu dundin en société mais am na mhm. ci yoo xamante ne nii c'est pas parce que ministre de l'intérieur woo na la que rek oui da ngay kii pour avant tout tu dois être un conseiller du ministre de l'intérieur yow yaa gën a maîtriser les réalités d'autant plus que le parti au pouvoir mosul sax gañe mbàgg mais lii tey la fa am est-ce que du gën a yokk frustration ña leen bañaloon bañ leen a voté est-ce que tey di nii du jur ñu gën a kii te pourtant état bi wala parti au pouvoir dafa am mission pour tey jéem a góorgóorlu pour jéem a reconquérir Mbacké donc yooyu yëpp dañ ci war a mën a bàyyi xel bu baax a baax am ñu si teg loxo euh, Simon euh, Pierre Faye jamono jooje waa benn bokk yaakaar ama janox taskatu xibaar yi di xam ne ne kon fi mu nekk ni stabilité bi am ci réew mi du ñu nangu mukk ku ko yàq moo tax it fi mu nekk ni li ñuy moo di dëkkab dóor dafay koy tas ku leen def dara ñu delloo la ko Abdoulaye Wilane yow seen kàddu ñu teewlu ko. lu ñu nangu kenn ak ku doon nga jéem jalgati loolu indi fi fitna mbaa bi fi yee loo xam ne nii day waroo ak jàmm ak liggéey. na ñu ñëpp dégg surtout ñi nga xam ne ñoom ñëpp gis nañu ne ci fitna ci xarabante ci weerante wu tegu ci sos ci la ñu nekk di jaxal ak a nëxal xel yi ñooñu nañu déglu na ñëpp seede ne ñoom ñun waa benn bokk yaakaar fépp ci biir réew pour jàmmaarloo ak képp koo xam ne nii jàmmi réew mi itteelul la dalub réew mi itteelul la dëgg itteelul la mu ngoog Mamadou euh, maanaam Mamadou Fofana sax euh, Simon euh, Faye dama nekk di bind en même dama nekk ñaari bind alhamdulilah. ah dégg nañu waa Bennoo. waaw waa Bennoo wax nañu waaye jamono jooju ñii ñu ngi leen di teg loxo. Mhm. waa Bennoo ñoom ne du ñu dellu ginnaaw. Mhm. gis nañu suba yéenekaay yu bari wax nañ ko 16 beneen procès am na ku si nekk di dànqaafu jàmm ji ñoom nee nañ du si dellu ginnaaw def faw nag jàmm daal di sax. faw jàmm sax parce que ñun moom lépp ñun ñëpp moom la ñuy ñaan. Mhm. donc il faut Sénégal nekk ci jàmm il faut Sénégal nekk ci sérénité te sérénité boobu dafa war njëkkee ci sunu way politique yi. Mhm. commencé ko ci waa Bennoo ñii nga xam ne ñoom la yàlla dogal tey ji ñu nekk ci nguur gi ñoom ñoo war a gën a mën a responsable ñi nga xam ne ñoom lañ jàkkaar lool c'est vrai ñu ngi ci contexte politique c'est vrai ñu ngi dem ay élection c'est vrai ku ci nekk da ngay défendre sa leader. mais nanga nga askan wi na nga sóoraale askan wi parce que mm-hmm. même ci biir kàddu bi sax ñoom ñu ngi ñu ngi amaana ñenn ñi ñu ngi waxtee jàmm mais ñu ngi tëkkuwante ci biir kàddu yi ñu ngi tëkku seen i morom mm-hmm. du ñu bàyyi kenn du ñu nangam nangam du ñu lii du ñu lële mais en même temps yow yaa ngi tëkku keneen ki léegi nag keneen kooku tam bu defee noonu mais penc mi day jaxasoo mm-hmm. dóorante ak sànnante chaise lay mujjee est-ce que war nañu yegg foofu donc nos hommes war nañu avoir une posture beaucoup plus républicaine am une posture beaucoup plus sereine ànd ak dal xam ne fii jàmm rek a fi mën a nekk lii xew nag xew na dañ cee war a mën a jàngat lu baree bare pour peut-être tegaat beneen jéego mhm. li xew Mbàkke wane na ko Mamadou na wax na ko manifestation la boo xam ne tere nañ ko ak fa ko kilifa ga teg yéen tam ngeen bañal ko loolu ak tam fu ngeen ko teg mais loolee yëpp tey jii lu mu indi mooy ay nit a ngi nii tey jii xëy na seen i mbokk ñoo nekk ci fitna. Mm. ñu ngi leen di jaabantaloo diggante commissariat ak tribinal mm. war a dem sax ba léegi xëy na pour ñenn ñi xëy na liñ leen doon toppee dafay changer parce que lii mënoon na yem rek ci flagrant délit. Mm-hmm. mais bu demee ba instruction di ci am ci wàllu yoon. ça veut dire mbir mi des na lu ñu ci war a lijjantiwaat. Mm. loolee nag lan la. lan lay wund ci li procureur wax ak li mu bind. lan la mën a wund est-ce que duñu yóbbu feneen. es ce que du indi leneen mais en li leer daal ba leer mooy kilifay diine yi yàgg nañoo wax moom lañ doon jàmbat sànq ba léegi di ko jàmbat depuis ay at. Mm-hmm. na réew mi ànd ak dal na sunuy homme politique yi ànd ak sérénité parce que loolu mooy jàmm askan wi mën nañoo dem élection élection yi bi jeexee après dañuy delluwaat Sénégal. le Sénégal ne s'arrête pas en 2024. ñu ni neen mm. ayca mu ngoog jamono joojee Mamadou Fofana waa Cour des comptes du ñu dellu ginnaaw jëm ci rapport Cour jëm ci rapport Fonds Force Covid 19 bi société civile moom nee na nag ñoom it du ñu dellu ginnaaw taxawal nañu benn plateforme tuddee ko sunuy milliards du rees. ngir jëlee fi impunité euh, mu Ndiaye Cissé njiital ONG 3D ba ñu ko laajee mu ne nag euh, lu ñu ci jublu du lenn lu dul euh, reddition des comptes doon dëgg gu ñu mën a teg baaraam fii ci réewum Sénégal ay kàddoom. Cour des comptes bi nekk na rapport boo xam ne du rek ay réaction mu jeex parce que yi daan am day am ñu wane suñu indignation maanaam suñu naqar. ngay jël ci biir. lii dafa am solo sama ah, ah kay. xam nga. dem ci mbalit mi <laughs> am nga lii dalay war ne suñu kilifa yi laxisme da ci am légèreté da ci am manque de rigueur da cee am est-ce que xam nga moom foofu noonu muy wax siège boobu noonu suñu parents d'élèves yi mhm. bénéficié wu dafay permettre gis nga euh, yi àdduna day dox il faut ñun tamit ñuy dox di ànd moom gis nga bu fekkul woon ne ñun ñoo tapé sur la table wax ne ne curricula njàngum Sénégal gi nañ ko soppi mais lii du am. il a fallu que ñu def le plaidoyer tapé du point sur la table ñun ñëpp ñu wax ci def ko débat national pour yëf yi doog a mën a kii mais ñan ñoo ko gën a porté. Mm. affaire bi débat bi génnul nii rek de est pas parce que parents d'élèves dañoo jékki-jékki rek xalaat de c' parce que c' est une réalité comparé nañ ko ak yeneen dëkk yi seen façon ngi jàng ak ñoom nan lañ def ba développé kon donc loolu mooy wane la pertinence et l'importance justement tey jii nii fi nga xam ne mooy kuréelu parents d'élèves bi nekk kon donc suñuy kilifa dañ ci waroon a taxaw de telle sorte que waruñu toog tey naan dañuy perte place boo nga xam ne dafa am solo parce que njàngum Sénégal dafa nekk loo xam ne lu ñu war a intéresser ñun ñëpp la mhm. parce que dañ ci jaar xaj na ba toll fii am na génération boo xam ne day ñëw on a des difficultés amuñu maître yu doy on parle d'abri provisoire ba léegi am nañ ay problème euh, euh, euh, yenn ci matières yi mais sa waay lii moom mooy indi jàng bi mën a dox lii moom mooy indi ñuy mën a jubbantiku dëppook jamono pour mën a dox lii mooy indi tamit suñuy kilifa ñu mën leen ne leen kat lii nañu bëgg parce que dinañ xam lan moo xew mais parce que suñuy doom aussi seeni avenir mais daf ñu yitteel kon donc ministre bi war na ci taxaw nu mu tuddati toto tap ta ta ta tap toto kii Cheikh Omar Anne na def de telle sorte que mu woo leen très rapidement correspondance yu ñu ci war a def yëpp nañ ko diligente nu mu gën a gaaw parce que place boobu ñun dañ ko soxla. dañ ko soxla ñu waxtaanee kon wàllum euh, mbalit mi ak initiative bu yees bi nga xam ne waa SONAGED dañu ko def mu di benn concept euh, brigade de proximité ci gox yeeg yi dañuy def yenn brigade yi nga xam ne dafay fixe ngir nag mën dajale dajalee mbalit mi ngir ay leeral sax dañ ciy teelu Mass Thiam jiital SONAGED. dispositif fixe la buy ci yenn quartier yi. 24 heures sur 24 7 jours sur 7 nga xam ne dina mën a réagir d'abord anticiper jafe-jafe yi mën a am ci koñ yi mais bu fekkee population yi aussi dañu am soxla bu ñu wootee ci suñu centre d'appel 202 123 mën nañu déclencher ay intervention ci quartier yi mais bu loolu weesoo aussi gis ngeen ni superviseurs yi dañ leen jox moto donc ñoom tam dañuy mën def des rondes de quartier pour des défaillances yi nga xam ni yëpp dafay am ci système de nettoiement bi ñoom ñu mën ko gàttandu mën ko régler déjà à l'échelle des quartiers lii nga xam ne nag moo wënd mbir mi mooy bëgg nañu daal jafe-jafe boo xam ne nit ñi mën nañ ko am ci ay quartier ñoom foofu un dispositif permanent boo xam ni mën na ko solution ñi ngi ciy waxtaan aussi ak yeneen entité publique yoo xam ni mën nañu greffé wu ci dispositif bi ba daal lépp lu jëm ci wàllu maintenance ci quartier yi moo am des équipes fixes qui sont là ay doomu quartier bi ci boppam ñoo xam ni mën nañ ko en charge jaajëf le sage de la maison Simon Pierre Faye rédaction baak lay xaar. jërëjëf Faye jaajëf waaye à demain. jërëjëf ñëpp. ayca le pertinent Mamadou Fofana. oui tout à l'heure incha allah 89 point 7. jërëjëf ñu waxtaanee te su réew mi. incha allah ñu dalal Pape Mante bu ci di euh, ci tàggat yaram. borom jàmm si. diagnostic fixe la buy nekk ci yenn grammaire la. naka tey alhamdulilah Mbambey. maa ngi jàmm. sant yàlla bu baax a baax. man waa Diagne Ndiaye ñu ngi leen di dégg. waaw nuyu bu baax a baax sama mbokk Alioune Léwu bi ah, ak sa costume bu nice. Ah, macha allah jërëjëf kooku c'est moi. waaw c'est am na xam naa ne que ndax jotul ñu taxawal benn politique bu nga xam ne dañuy taxaw suñu sportif yi gannaaw ba ñu demee retraite waaw jot na nag ñu réfléchir si en tout cas li ni mel euh, day nag dikkaat bu baax a baax surtout nag bu ñu gisee ni euh, kaawu kendooy ndem si yàlla si nga xam ne démb nag lañu ko jébal suñu borom euh, kon ba tax na kon jàngat boobu kii di président Lamine Gueye dikkaat si ngir xool nag yan anam la ñu war a nag di taxawoo suñu ay athlètes yi nga xam ne yàgg nañu teewal fépp ci Afrique ak ci àdduna bi ci leeral ñu ànd ci ak kii di président Lamine Gueye fukki at muy xeex ak moom mu mujjee mën waaye nag mu bàyyi ci gannaawam carrière boo xam ne bu mucc ayib la ak ay médailles ay médailles yu bëree bari moom mi nga xam ne da doon def triple saut ak saut en longueur ñu ngi ko xam 1998 boobu nag championnat d'Afrique moo amoon fii ci Dakar ca bés boobu mu am ñaari médailles benn bi ci xaalis la ci longueur beneen bi nekk bronze ci triple saut loolu doon annoncé ni xale bi dina nekk athlète bu ñëpp di dégg mu mel ni sax mbir mi mujj naa am ak médaille mu wàllu Afrique ak tamit ay médaille d'argent ba ci sax ay yeneen médailles yoo xam ne gagné na ko au plan mondial mu mel ni nag compétition bu mujj ma nga amee ca Maputo atum 2011 ci Jeux africains yi boobu sax amoon na ci médaille d'argent ci triple saut ci wetu carrière bu rëy boobu nga xam ne def na ko kenn mënul fàtte moment yu difficile yi nga xam ne athlète bi tamit dund na ko ba sax mu yóbbu woon ko ba mu yëkkati baatam di woo kilifa yi ci ñu fay ko ay primam ngir mu mën ko fajoo mu nekkoon ay jamono yoo xam ne sénégalais lu leen naqari ndax jafe-jafe yi athlète bi amoon tey jii demam war a nekk occasion pour autorité sportive yi ak autorité dëkk bi ñu gën a xalaat ci jàppale gu ñu war a jàppale athlètes yi nga xam ne dañu représenter Sénégal moo xam seen carrière la moo xam sax après seen carrière dëgg la amoon na xalaat yu commencé woon meññ ci bi Matar Ba jiitee ministère de sport ba ñu waxoon ci sax ne dinañ taxawal benn fondation waaye loolu musuta am tey jii Yankhoba Diattara bi ci bopp ministère bi ba xalaat yooyu ñu dëggal ko ba nga xam ne benn athlète wala benn ancien international dootul am ay jafe-jafe yu mel ni faju loolu nag dafa sax nekk yoon ndax ku teewal Sénégal yëkkati drapeau bi ca ba ngay mën boo tëlee nag Sénégal war na laa jàppale président Lamine Gueye jàppal na sax ci boobu le xalaat kii di ministre des sports Yankhoba Diattara mi nga xamoon euh, mi nga xam ne démb moom lañ daloon nag ci émission euh, seen mu ngi xam ne nag euh, ñoo ngi ciy liggéey waxtu wi ngir nag xool na la ñuy gën a nag dooralee suñu ay athlète que ce soit mu nekk discipline bu nekk gannaaw nag ba nga teewal Sénégal moom mi sax muy nag indi njaalam di ko jagleel kii di njabootu kenn duy muy nag njaalu nation bi ñu teewlu kon Yankhoba Diattara ak kii di Fatima Diop ni noonu El Hadji Malick ko ñu jaale famille Kendo yëpp ci li nga xam ne mooy tiis bi dal ci seen kaw muy le rappel à Dieu suñu mbokk suñu naataangoo bu di Kendo yi nga xam ni moom euh, yëkkati na raay Sénégal fépp ci àdduna bi donc nekkoon championne athlète bu mag a mag a mag donc boo xam ni yàgg na sagal Sénégal euh, ñu wax ni li nga xam ne mooy prise en charge médical mooy athlètes yi nga xam ni suñu eggee yenn age yi dañuy am ay jafe-jafe santé donc leen nekk na loo xam ni euh, préoccupation bu mag la ci ministère bi. te loolu dañ ci war ñun ñëpp commencé xalaat ñun ñi nga xam ni ñoo ngi ci ci secteur bi pour que ñi nga xam ne dañuy nekk ay athlètes de haut niveau mais également nekk dans la haute compétition. donc tey ñu gis ni souvent suñu eggee yenn âge yi dañuy am jafe-jafe santé war nañ xalaat déjà suñu nekkee en activité nan lañ leen di wutal ay police d'assurance yoo xam ne peut leen mën a accompagner ëllëg. donc ci seen euh, retraite wala su fekkente ni pare nañu pour seen prise en charge médicale ñu waxtaan bi la yoon si taskatu xibaar yi ñu dajale si ak lëlu tàggat. waaw loolu nag euh, démb woon euh, ku ci mel ni euh, Lilian Gatou nekk rédacteur en chef adjoint bu service des sports bu Canal Plus ni ko noonu tamit Abdoulaye Dabo nekk foofu ci 6 TV ñoon nag partagé seen expérience ak yenn ci ay taskatu xibaar ci benn séminaire bu ñu dippee séminaire de formation de commentateur sportif bu nga xam ne chaîne crypto bi moo ko organisé woon ci teewaayu nag association nationale de la presse sportive ci leeral ñu ànd ci ak Soxna mu di ab atelier de formation boo xam ne journaliste commentateur yi di leen yokk xam-xam Liliane Gatounès àndoon ci ak Abdoulaye Dabo ngir gën a renforcer capacité bu ni mel mu nekk liggéey boo xam ne diggante journaliste ak consultant lay doon. ñu war di gëstu bu baax te di ko jëmale kanam ñu di ko def reportage bi nag ci la bokk lan la ñuy reporter euh, nan lañ war a seet reportage yi gën a gën a neex gën neex nit ñi parce que ñun askan bi lañ ci nekkal. donc askan bi saa yoo liggéey pour askan moom i faut nga seet tout le li neex askan bi koy gën di arrangé nga di ko def loolu daal moo tax ñu tajabi tey di xam nga di dal di wéccoo xalaat ci ci affaire boobu euh, ñu daal di ci boole nag maanaam wàllu consultant yi nga xamante ne dañ leen di jël moo xam ancien joueur la moo xam entraîneur la ñu leen di jël di leen boole ci suñu reportage dañu yaakaar ne rek am na loo xam ne mun nañu mun nañu ko indi ci biir reportage naam duñu journaliste mais euh, am nañ xam boo xamante ne boo ko yokkee suñu liggéey ñi dina tax liggéey bi gën a baax. waaye Abdoulaye Dabo mi lay ni jigéen ñi dañ cee war a gën a sóobu. vraiment vraiment ñu ngi leen di ñaax ñu ngi leen a jublu ci reportage football bi léegi bu góor ñi rek ñoo ci nekk gis nañ fi coupe d'Afrique féminine gis fi donc tey ñu ngi ci terrain bi. mu nekkoon formation boo xam ne taskatu xibaar yu wuute woon nañ fa moo xam ñu nekk télévision rajo ba ci sax presse écrite ku ci nekk am loo fa jànge lu jëm ci wàllu commenter match war ci ànd ak consultant ñu dem ba sa Malika foofee saat bala ñu ko caxat caxatee lu xew. waaw jàppale nag ay supporters yi nga xam ne daanaka kon ànduñ ci yenn ay décision yi nga xam ne ñoo ngi koon amal nag euh, ci wàllum euh, tàggatu gi foofu ci diwaanu Malika. en tout cas lu ni mel daal euh, ñi nag di association des stylistes ak couturiers yu Malika doon ko ñaawlu bu baax a baax seen randonnée PDS bu ñu doon amal di ci nag sensibiliser waale ndaw ñi di leen fàttali ni football warul nag di euh, tàqal ay nit dafa war di boole te nag def na war nañ def seen kéem kattan ngir nag euh, préserver seen stade boobu nga xam ne moom rek la ñu am ci département bu Kër Massar ñu teewlu ci Mamadou Seye mu nekk président bi ak kii di Idrissa Diémé lay boole association des couturiers Malika li ñuy wax rek mooy mbir mi du du du mbiru du mbiru noonoonte compétition ku ko wax xam ni da am foo bokk keneen am foo bokk keneen am foo bokk parce que loolu mooy sport parce que ki gagné tey suba mën naa ñàkk ki ñàkk tey suba mën naa gagné kon donc dañuy woo ñëpp rek non à la violence stade bi daanaka sur le département moo fi am kon donc ñun ñoo ko war a préserver ba képp ko soxla si département bi aussi man koo jariñoo donc loolu moom si notre rôle aussi gën a def benn campagne de médiation en fait pour que ndaw ñi mën a xam li bijou bi ñu am ñu mën koo jàpp man koo conserver ñu waxtaanee Ligue des champions yi ah, ak euh, huitième de finale fi mu si toll tey jii. waaw tey nag la ñuy wëyal tamit yenn ci ay euh, jogante yu soxal huitième de finale Ligue des champions déggoo nag jàppal ni AS Milan moom moo daan Tottenham bu ñoom Pape Matar Sarr. benn bal ci dara daanaka même score lañ demee ko nag ci diggante Paris Saint-Germain ak Bayern Munich Paris kon dafa daanu kon euh, ci digganteem ak Bayern benn bal ci dara tey jii nak ci ngoon 20h FC Bruges mooy dalal ñii di waa Benfica ci boobu li waxtu Dortmund la ak Chelsea ñu fas yéene wéyal kon lu soxal huitième de finale sax ni ki mardi 21 mooy semaine prochaine 20h Liverpool dina ci laale ak Real bu Madrid. Francfort ak Naples mercredi 22 d mooy dalal Manchester di waa. Euh, Porto lay doon lu soxal nag douzième journée en retard foofu ci Angleterre choc bu am solo dina am nag ci diggante Arsenal mi nekk ci boppu championnat bi am 51 euh, points mooy dalal ñi di waa Manchester City nekk si ñaareelu place bi am 48 points ci Espagne moom 21e journée euh, décalé tey jëlee lañ koy amal 20h Real Madrid moo ci dalal Elche nekk ci ndaareelu place bi kon Mambay lii moo fi gënoon fës soxal xibaaru tàggat yaram jaajëf. jaajëf borom jam siti yax dugaar Pape Mahanta bu ñu jàll ci pàcc bu mujj bi li yéene kaay yi xëy fësal lay doon ndax